penco bii ngeen def nag ba tax euh, nappkat bi mën a wax xalaatam baykat bi mën a wax xalaatam commerçant bi mën a wax xalaatam ñu dajale ko ngir état gën a xam taxawaayam fan la war a nekk li ci ne mu xam jafe-jafe yi waaye wax tamit li mën a ne ak li mënta ne donc président loolu ñu ngi la ciy gërëm di la sant di gërëm ñi ma fi dajal yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp Euh, di leen wax ne daal ñu ngi suñu buntu tëjuñu ko suñu téléphone yi tëjuñu ko jafe-jafe du ñàkk waaye lu ci ne nañ ko waxtaanee mooy la ma wax keroog sama mbokk boulanger yi nee naa leen dëgg la courant yokku na mais bu courant yokkoo li war mooy ngeen ñëw toog nañu courant yokk na nu ñu def waaye bu courant yokkoo boo demee seeti rajo beeg télé bi ne ko courant yokk na damay yokk moom it <laughs> te fekk yow yokk yoroo dogal bi ministre bi moo yor dogal bi te boobu ba léegi farine mi ngi yokku leneen ak leneen a ngi yokk te ñu ngi trouver solution te du laal Sénégalais yi defe naa jamono ji fi mu toll mooy bu bu yokkute amee inflation bii ñuy dégg njëg yëpp yokk li war mooy ñu toog comme inflation ni ko ni ko ni ko magu lébu yi waxee mooy facture bu yokk facture bu yokk ku ne da ngay jël sa wàll defe naa ne état bi jël na wàllam bu baax ndaxte fi mu ne ñaari at yi ñu weesu demoon nañ ba toll jamono joo xam ne ku jënd litre gasoil boo tegee 655 ci jamono yi muy jar 655 état du Sénégal nattal na la quatre cent et quelque boo demee ba jënd butéelu gazu six kilos bi nga xamante ne moom ngay jëfandikoo deux mille huit cent quatre cinq xamal ne prix bi normal quatre mille francs la woon état bi teg na mille cent quinze ngir nga mën ko jëndee deux mille huit cent quatre vingt mën nañ ko wax ci mburu mburu bu ñu nee mburu euh, fanweer ak juróom mën na am mënoon na jar juróom benn fukk ak juróom maanaam trois cent vingt cinq état def euh, fanweer. donc loolu yëpp di waxtaan moo koy indi mooy li ngeen def nii tey gis ay jafe-jafe waxtaanee ko ñu toog xool lu ne li ciy jafe-jafe donc acteurs yi maa ngi leen di gën a ñaax ci loolu jafe-jafe yi bu amee ñu waxtaanee ko ndaxte yenn saay tiital population yi wala yokk coow loo xamante ne amul njëriñ ci table lay mujjee defe naa mag ñi dañu daan wax ne euh, xare wala euh, guerre boo gis ci table lay mujjee te ñu nag yéen nag wax dëgg yàlla ay partenaires lañ. Euh, monsieur le tey li ñuy def. mooy dañuy dañuy restituer liggéeyu ñaari at yoo xamante ne commission yi ñu ngi tëju di liggéey di seet ci biir économie bi taxawaay bi ñu war a taxaw en tant que chambre consulaire ak taxawaay bi ñu war a taxaw en tant que opérateur économique kon fukki commission yooyu ak juróom-ñeent seen liggéey tey lañuy indi waxtaane ko càmbar ko mu nekk loo xamante ne day nekk taxawaay ci ñun nekk tam taxawaay bu am solo ci secteur privé bi waaye ku ne xam ne décret bi nga xamante ne moo organiser chambre de commerce yi euh, loolu dafa wone suñ taxawaay maanaam commerce industrie ak agriculture wane taxawaay bi nga xamante ne taxaw nañ ko te luwaa bi encadré ko kon su ñëwee tey di wax ci tout le secteur privé bi dama wax ne kooku xëy na loi bi moo ko def waaye nag lépp solo mooy seen taxawaay yéen ñi jëmmal jëmmal loolu jàpp nañu tamit ne yombul woon au départ ndax boo xoolee ñi nga xamante ne ñooy personne ressource yi dañ leen a xool kenn ku ci nekk ci domaine bi nga nekk xam-xam boo ci am ak expérience boo ci am ba tax ñu jox la moyen yow mun a fexe liggéeyal sa bopp liggéeyal sa réew te loolu defe naa ne résultat bi ku ne gis na ko ndax awma yaa awma benn yàqin ne commission yi nga xamante ne taxawal nañ ko lii nga xamante ne dinañ ko def ba ko assemblée bi yokkee yokk seen xalaat dina nekk document boo xamante ne bu ñu ko présenté le secteur privé présenté ko le président la république et son gouvernement loolu day dooleel PSE bi nga xamante ne gouvernement bi da koo taxawal pour mën a nekk loo xamante ne dafay jëmale Sénégal ci kanam loolu moo tax ginnaaw bi ñu leen santee gërëm leen féliciter le président la république et son gouvernement ndax buñ toogee ba tey yokkatuñu benn yoon di sax proposer ay proposition yoo xamante ne muy PAP muy PAP 3 euh, dafay wone rek ne à tout moment ñoom ñu ngi ci liggéey boo xamante ne jàpp nañu ne euh, liggéeyu Sénégal la te loolu tamit ñun en tant que secteur privé dañ koy saluer kon encore une fois bu ñu xalaatee yóbbu Sénégal en 2024 ci croissance ci bi bu dem presque 9 point 2 loolu ab liggéey la taxawaay lay wone euh, ku liggéey ku nekk nag dina am loo xamante ne dinañ ci gis lenn ñeneen gis ci leneen waaye li am solo moo ñu tàppi xol yi ànd ak ñoom pour yóbbu Sénégal foo xamante ne suñu njort passé na fa xëy na di fàttali rek ndax jàpp nañu ne luwaay yi nga xamante ne defoon nañ ko muy ci partenariat public privé taxawaay yu rëy la woon ñu ngi ñaan sama sama borom xari àjjana fa Mansour Kama ànd ko fa Lamine ñaa xeex nañ ci loi yooyu texte yooyu ba pare kon ñun li ñu waral mooy di fàttali ñu bañ ko fàtte ndax lépp a ngi ci loi yooyu te buñ ko appliqué nañ ko war a appliqué dinañ ci gis ak yokkute loolu moo tax ñuy ñaanaat di waxtaanaat pour loi yooyu ñu dëgëral ko euh, dem na sax ba préférence nationale bi ñuy wax surtout ci li nga xamante ne mooy marché public yi dem na ba presque vingt pour cent te loolu tamit ay taxawaay la kon nag ñun ñoo war a veiller en tant que institution buy taxaw taxawaay loolu di fàttali di ñaax di wone ndax loolu day nekk njëriñ loo xamante ne opérateur yi nañ ci mën a gis seen bopp mënu woon jeexal te gërëmoo ñëpp santu ma ñëpp ndax jàpp naa ne réflexion bi ñu teg ci taabal ji assemblée bu ñu ko partagé ak yéen ci ñaari fan yi taxawal ko dafay wone rek ne euh, yéen a ngi suivre baax programme de mandature bi nga xamante su soumettre nañ ko bi nga xamante ne dénk ngeen ñu jiite chambre bi te seen contribution buñ ko xeeb ci ñaari fan yi day am solo.